mbirum nervi yi moom damay damay damay masawu coono suñu armée jiite jiital ci rek sàndarma sàndarma yi ndax ku ne xam na seen liggéey ku ne xam na seen diplomatie ku ne xam seen xereñ gendarme Sénégal Sénégal nag bu duggal ci ñii di jàmbaar yàqal leen ngir seenu der mën a yàqu ca loolu intérêt da koy waral muy nervi yi Sénégal Fall mi ñu dàq ngir wàllum defe naa di wax ci lim xalaat ci wàllu mbir bi niñ jaxasee réew mi loolu ñu dàq ko ci loolu day yàq ñi nga xam ne ay waxkati dëgg lañ ñiy waxkati dëgg sax loolu mënuñu ko président mënu leen a ko xoxatal ba ba duñ wax dëgg waaye am na ci ñoo xam ne dañuy yàq loolu nag na sàndar na xam na sàndar na ñi xam seen bopp xam ñi yàq ñu deneen sëriñ ñu génne leen ci police bi nag moom waxuma ay wax ay jàmbaar lañ waaye bëri na faay lool ñoom it dañoo bëri ñu leen di yàqal lool ca bëri na ñuy bëri jàmbaar bëri ay jullit bëri ay chrétien ak ñoo xam ne ñëpp yeneen diine lañ bokk waaye respecté seen diine seen religieux respecté yi Sénégalais yi di rafetal ñoom policiers yi waaye li ci ëpp yi ci ñoom am na ñoo xam ne dañuy yàq ñu ñoom daanaka ñoom lañ gën a xamee nervi yi ñoom ànd ak nervi yi gendarme yi ànd ak nervi yi waaye police yi dañuy ànd ak nervi xool ca loolu day yàq it seen image nañ moytu loolu ca xam ne ay sénégalais lañ lànk kandaare bañ a nangu nervi yi ñi ànd ak ñoom même ñoom bu dee am na waa police yu ànd ak président wala waa waa waa gendarme yu ànd ak Sénégal bu ci ay nervi bañee ñu wane ne ñoom seen président déglu fa seenum njàng ak réew mi ndax ñu doon gendarme wala mu doon police wala ñu doon militaire président mënu leen a folli wàcc leen wala affecté leen fu sori dong la man ca boo demee dëgg fu la affecté dem fa dëgg saa dem fa dëgg saa borom du la bàyyi kon nañ nañ xam loolu lu buñ li naree booy nervi yi ñu ñu lànk te nervi yi ñu xam seen bopp ponkal mu topp ñu lay fay vingt mille francs nga war a dundal say waajur war a bokk ci population bi amal yu njëriñ war a dimbali jeunes yi bokk ci jeunes yi nga xam ne dem ci géej gi ak taxawaalu ak ñu lay jox vingt mille nga ànd ak président cortège am bi di di toroxal Sénégalais yi comme ñoom loolu ak comme ñun comme ñoom loolu ak ñàkk jom la nervi yi nañ xam seen bopp góor jigéen moom duñ ko maslaat kenn président wax na ne li fee mi ngi fi du am waaye am na parce que euh, boo bëggee légalisation boo demee ñu légaliser la ko li ñu fi araamal mooy rek ñoom nga taxaw di ko wax publiquement waaye ñu ko bëgg a doon ñoom fi ca aar nañ leen ku leen duma bu ñu la toppee ci yoon ñoom dañ lay indil problème ñoom état ca loolu na ko Sénégal yi bu xam góor jigéen bu mu dajeel nañ ko duma góor jigéen bu Sénégalais yi dajeel nañ ko duma état taxawaayam furigu ci du ma tudd man ñi nga wax léegi ne ñu ngi ciy coow xaw ma ñan ak ñan loolu intéressé waaye kuñ ci man a wax kuñ mën a tudd daal tudd góor jigéen di yàq li ñu maam yi bàyyiloon di yàq société bi di yàq ndaw ñi kooku moom nañ ko duma ca président yi na ci taxaw taxawaay boo xam ne légalisation yi ñu defal góor jigéen ñi ngir boo demee ñu ne ñoom fi ñu ko war a jaar boo ko fa jaaree am ko nga xam ne doo ko sañ a yëkkati ca waaye sañ nga koo doon ñu wutal ko dindi nañ ko dindi ca bàyyi caaxaan yi uh-huh. réew mi daal sàcc si bëri na mafia bi bëri na sàcc yi man ko ko commencé Sénégal nañ yeewu ci kuñ fal rek mu sàcc ñu dem milliards yi ñu denc ko loolu uh, lu métti la ci ñun mais waral na it maanaam uh, semence bi di gën a kii yow buñ la falee ministre cinq mois nga sàcc milliards denc buñ la falee buñ la follee liggéeyoo dara continuer di dund dund koo xam ne sëñ li ngay yor ci Mercedes ak li ngay yor ci Land Cruiser li ngay yor ci gis nañ fi ñoo xam ne seen ay maay baax Ferrari euh, Rolls lépp lañ fi yor. muy doon ay bépp yoo xam ne weekend da ngay dajee si da ñoom ci ci ci ci restaurant yi nga xam ne da nga fay dem wala hôtel yu mag yi nga xam ne da fay dem ay séminaire wala di di am ay maanaam ay euh, ñu jógee biti réew yoo xam ne da ngay waxtaan ak ñoom en tant que dimbali la say gox nga fay dajee ñoom di defee réunion ngir bëgg a sa gox la nga bëgg a yóbbu léeg-léeg da boo fa demee ngir loolu da nga leen di gis ca da gis ne taxawaay yi sàcc yëpp moo la loo ci gis bii lay doon ak rafetaay maam milliards yëpp ñu sànni ko ci compte au lieu ko ñu koy rouler di ci liggéey sénégalais di ci jariñoo mu am emploi waaye seeni billet d'avion lay doon sàcc milliard mu doon billet d'avion ak rafetalement ak essence ak oto yu ak oto yu rafet yoo xam ne dañ koo sàcc loolu moo war a jeex ci réew mi. merci mm-hmm. sàcc yi dakk réew mi jub seen yi jub am xam ni bëgg bañ ku leen jënd fas yéene génn am fulla ñu gagné président ñu changé koo xam ne kat li ñu waxoon dina ko def li mu wax dina ko respecté. bu ko respecté wu ñu jëlee ko fi jëlee ko fi indi keneen Sénégal yi bu bu politique yi bu politiciens yi sonn ci li ñu caaxaan nañ bañ a sonn ci fexe ñu leen soppee ku bon ñu yóbbu ba am ku baax bañ xam ne soppi ko nañ ngir ku ñëw la di wax mu yóbbu ko fa mu respecté ko ñu ànd ak moom ak ay patriotes yu mel ne Paul Kagame ak ñi fi jaar ñoo xam ne ay bañkat la woon jariñ Afrique wuteeg ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon doon ñoo xam ne kat Afrique gëmuñu Afrique. topp tubaab yi def leen day bàyyi ba tey moo des fi ci suñu président yi ñooñe moom amuñu njariñ Afrique amaluñ njariñ seeni réew nan leen folli te ñi gëm ne ay patriote lañ bëgg a defar réew di ay patriote yoo xam ne ay président ay patriote lañ ñu xeex booloo doon benn Afrique dajale président yooya bañ am liñ bëgg ndax Afrique la lépp ne